yàlla Muhammad moo mujj ñëw moo indi lislaam biir lislaam boo yëree téere bi indi juif waxi juifam ci biir lislaam nga ñëw ci chrétien daanaka da nga naa waaw lii lu leen wutale daanaka doo xam li leen wutale bu fekkente ni amoo benn tolluwaay bi waaye lu ci ne ku ci ne ak fa nga woon yonent muhammadu rasulullahi bi muy ñëw fekk na nit ñi seen xel seen xam-xam seen melo ak la ñu war a attan toll foo xam ni wees woon na les autres religions moo tax biir lislaam lu ne ngi ci te am lu ci ne xam ni nekkul woon ca yee ndax ñi ñi àgguñu fa woon waaye lépp kat la réalité de chaque religion c'est Dieu yàlla kenn ki lii laïcité nag mooy bëgg a bañ loo nit ñi loola naa école la euh, amul lii amul yàlla amul leneen bu fi kenn wax lii bu fi kenn wax laa jéem nañu ko la constitution du Sénégal fii mu ne ci constitution réew bi laïcité ci ne waaye cette cette laïcité est confrontée à la réalité sénégalaise dara la ci mënul ça devient plus qu'un mot creux waaw dañu ni laïcité waaye nun noo ngi vivre suñu spiritualité mbir mi noonu la deme kon c'est important que d'appréhender mais fii Ablaye Wade bi mu jëkkee def l'ébauche de la constitution génnewoon na ci la notion de laïcité waaye yéen ñëpp am nañu ko fàttaliku ay coow la diwoon ci réew bi ba daa dawaat dugal ko ci waaw parce que les gens ne sont pas préparés moo laïcité Ablaye Wade génne woon na ko ci constitution bi waaye coow yi coow yi sur le plan politique nit ñi ils n'ont pas compris ndax tàmm nañ koo dégg ci constitution ba dañoo mujj delloowaat ci le mot laïcité waaye lu buy jëriñ nous sommes en train de vivre concrètement notre, nos religions, nos différentes religions au Sénégal. Et dans les écoles, dans les universités. fii ngay gis murit yi tijaan yi xaadir yi ibaadu rahman yi chrétien yi juif yi ku nekk ngay def séef luñ ci mën voilà le problème kon laïcité képp mooy mécréance laïcité mooy bañ diine diine yàllaa tax boo xamee ni yàllaa tax ni nga xam lu spiritualité ak religion religion mooy dogme yi li tax nag dogme yooyu jóg pour adhérer Dieu mooy la spiritualité que postulent les religions les religions bu ne sa finalité mooy xam yàlla xam yàlla mooy spiritualité mooy intellectualité spiritualité nii rekk la deme li tax na yoonu murit te fii Serigne Saliou jaarale Cheikh Béthio ak yéen mooy nun noo ngi ci biir lislaam waaye li nu yitteel mooy xam yàlla mi tax lislaam jóg waaw nun li nu yitteel mooy xam yàlla ndax yàlla daa bëgg koo xam nee na waa boo ma xamul yow noo may jaal noo may jaamoo jaamu koo xamul tu vas le faire imparfaitement moo tax képp koo xam ni nekkoo ci spiritualité doonul sa objectif doo xam yàlla te xam yàllaa gën julleeg woor ak natt asaka